dal nag jàmm ci seen actu de la journée ñu tàmbalee ko ak génnub àdduna bu xalif général dëkk bu tedd di Medina bay di Cheikh Ahmed Tidiane Niass dimanche démb nekk doom ci Cheikh Al Islam ak Zeyda Mariama Niang Cheikh Ahmed Ibrahima Niass moo ngi gane si woon àdduna mai atum 1932 fële si Kossy nekk dëkk bu soriwul dara ak Kaolack mu nekk ñeenteelu xalifu bay Niass ci lu yàgg mu nekkoon ambassadeuru baay ci ay dëkk yu bari di ñaan suñu boroom xaare ko arjana te tas ñu ci barkeem Bamba Fall di maire bu Médina ak njiital Moustarchidine yi di Serigne Moustapha si ci ay xibaar yu ñu tàttaan ci les échos ak laas dañoo daldi am jàngoro bi di coronavirus Bamba Fall moom daanaka ci tollu fukki fan ba léegi mu ngi tëdd fële ci hôpital principal bu Ndakaaru waaye seen état wér gu yaram amul benn tiitaange nekkoon ab ingénieur foofu ca Renault altine bi lañu nar a yóbbu amadu Ngom Guèye ngir ñu àtte ko ginnaaw bañ ko tuumaale ci agression bu professeur musa Seydi àllarba bi wees lañu ko placé sous mandat de dépôt ca bés ba procès bi mu ngi ñu dàkk ba altine di fàtte li agression bi mi ngi am ci armeelu Yoff yi ginnaaw bu professeur Seydi demoon ziyaare doomam bu jigéen amadu Ngom géey daldi di artu ak tuumaal Moussa Seydi ci ay ñawteef yu mu def ba noppi daal di ko topp ba ci otoom te ko ak ay kàddu yu ñaaw